ay badar mm-hmm. ñoo ko booleeg der ba mm-hmm. lal ko ca mbeex ma su ngeen déglu woo tey ji ma dellu yeete ku rëy bay damoo néegum ndeyam baax baayam bu baax ñu sew nun ñii tey damoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax su ngeen delluwaat ñu laa biire gaa yu baaxi naan ay wolof baaxul ne rëy day sewal ku baax ñu sew nun tey demoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax Sëriñ Musaa Ka nee na Seex Musaa ñu laa gaayu ba ay wolof baaxul nerey day sewal ku baax bu baax ñu sawu nun tey damoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax nee na sëriñ boola mbaaje ba ci biiram mu andi teex waaye bàyyu sëriñ Saaliwu Mbàkke moom baatinam boobu saayir sa yàqu ko Mbàkke borom to dégg nga Mhm. Euh, nii mu ko waxee rek jërëjëf am na émotion trop. noonu la demee c'est très émouvant bi mu neena bi mu bi mu ko defee ba ba yëg ni Muxtaar mi sori na. bi bi mu séenee ndaw si muy ñëwaat fekk am na njàpp mu tooy dafa sànni der bi ci géej gi ne ko bu la gaal gi raw. loolu sëñ Modou Khari Bousso moo ko nettali ak njabootam ñi ngi fi Serigne Bàcc Bousso mooy xalifaam bi sëriñ bi jullee nag ba noppi